di leen ndokkeel ci weeru màgg wutet bi ñu nekk muy weeru safar di weeru ngëneel di weeru xéwal di weeru tawféex di weeru cheikhul xalim radiallahu anhu wa arta di weer wi nga xam ne ci la génnoon dem liggéeyali boromam suñu borom subhanahu wa taala liggéeyali sangam ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam liggéey boobu nga xam ne bi mu ci jógee ci la wax ne li mu doon wut lépp ci la ko amee waa këramit li ñu amee ci moom lépp ci lañ ko amee bis boobu weer woowu nag nga xam ne ci la 18 ci la ci génnoon génne ci këram Mbàkke Baari dem liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu demee ba liggéey ba ñëw nag bis boobu la jàpp muy bisam mu wax ne waa këram euh, li ma doon wut ci bis bi laa ko amee yéen li ngeen am ci man lépp ci bis bi ngeen ko amee kon saa bu ñëwatee képp koo xam ne sama mbég sa mbéga na nga ma santle suñu borom subhaanahu wa taala ci bis bi ci xewal gi ma defal cant googu nag euh, doon loo xam ne kaw lay jëm saa su ne ñu toll nag ci fan yi nga xam ne ñu ngi koy waajal ci kilifteefuk Mawlana Cheikh Mouhamadul Mountakha taxa ñaan suñu borom guddal fanam dolli ko wér dolli ko kàttan eh, ba mboolem naan li mu am rek parce que yéen ay liggéeyal Cheikhul Khadim radiyallahu anhu mu def ko ni mu ko bëggee. ñu del nag ci jotaay yi nga xam ne rek dafa bokk ci jotaay yi nga xam ne dañ koy waajalee bisub cant kooku noonu ndax ak cant mooy jaamu yàlla jaamu yàlla nag fu ñu ko waxee eh, lépp daa dugg ca biir. sant suñ borom ci la dugg kañ ko ci la dugg def ndigalam yi ci la dugg wattandiku tereem yi kem kàttanam ci la dugg. jotaay yi ñuy def nag day rek jotaay yoo xam ne dañ ciy fàttalante euh, lenn ci ay bind yoo xam ne jullit bi nga xam ne xamoon na dana ci fàttali ko jullit bi xamutoo ne dana ci jànge muy kon njëriñ yoo xam ne yoo am solo la ndax xam ngeen diine ji ñu nekk di diine lislaam fàttali la ndax yonent bi ko fi indiwoon li ñu ko waxoon mooy euh, saa yoo xamee ne fàttali dana am njëriñ na nga fàttali te it na nga fàttali ndax fàttali dana jëriñ mboolem mi nga xam ne dañoo dañoo dañoo gëm yàlla fa inna zikra tanfaul muminin ndax fàttalikat day day jëriñ ñi nga xam ne dañoo gëm suñu borom tomb bi nga xam ne it moom la ñuy waxtaane bu am solo la te mooy relation bi amoon diggante Cheikhul Khadim radiyallahu ak kilifa diine yi nga xam ne dafa jamonoon teg ñoom maanaam mooy ñi nga xam ne duñu woon ay taalibeem waaye ay mbokki jullitam lañu woon euh, ban relation la amoon ak ñoom loolu relation bi amoon ak ñoom rek ci tënk mooy relation bi jullit war a am ci rek ndax xam ngeen jullit ñi eh, ay mbokk lañ xam ngeen eh, suñu borom subhanahu wa taala mi ngi wax ci alxuraan ne innamal muminuna ixwa ne jullit ñi wala boog ñi gëm yàlla eh, ay ay mbokk rek lañ innama ci biir ci biir ci biir arab mooy li ñuy wax day tënk ñi gëm yàlla daal ay mbokk rek lañ innamal muminuna ixwa lislaam gisin woowu la am ci biir mbokku jullit ñi yéen sansam wax ci lu ne al muminu lil mumini kal bunyaani ne jullit ak morom bi nañ war a mel rek mooy ni tabax bi mel nga xam ne tabax bi eh, laata ñu koy tabax dañoo wuti suuf wuti ciment wuti fer wuti ndox wuti beton wuti lu ne waaye bu ko boolee ba mu àgg kenn dootu ber yooyu ab tabax rek ngay wax mooy yéen sama wax ne julli ñi kon noonu nañ war a mel ba mur bi boo xoolee doo xam lu ciy fer ak lu ciy ciment ak lu ci suuf ak lu ciy ndox waaye dañoo àndandoo rek tudd mur nekk mur ne jullit ñi noonu lañu war a mel seen biir wax ci lu bari xam ne sama jàng na ci lu bari Eh, masalul muminina fii tawaddudihim wa taraaxumihim ka masali jasadil waaxidi ne jullit ñi war nañoo mel rek ni ni yaramu doomu aadama mel fu benn cër bu métti rek cër yi ci des yëpp dañuy participer ci métti woowu noonu mooy kon jullit bu ne war naa bëgg la la mbokkum jullitam bëgg war naa bañ la lam bañ su ko amee bànneex mu bokk yéene ko ko bu amee naqar wala mu bokk koog moom te wétali ko kon relation boobu noonu ci loolu rek la basé wu mooy mooy ay jullit yoo xam ne dañoo war a ànd al muslimu axul muslimi Euh, mooy jullit jullit rek jullit mooy bokkam yi soo wax na loolu euh, al muuminu euh, laa yuhibbu laa yu'minu ahadukum hattaa yuhibba li axiihi maa yuhibbuhu li nafsihi kenn ci yéen du am ngëm gu mat sëkk lu dul ne dafa yéene mbokkam jullitam li mu yéene boppam xam nga ne loolu li mu am ci ci li ci yonent sallam wax xajut fii bu ñu ko doon wax loolu rek dama ko doon wax ngir wane ne relation bi am seen diggante rafet rek lay mën a doon ndax ñoom ñëpp ay niti diine lañ ay ay jullit lañ ay niti lislaam lañ ay kilifay diine kon njàngaleem lislaam rek ci lañ mën a tënku euh, moom sëriñ bi it bu ñu ñëwee ci relation bi amoon ak ñoom euh, gisin bi mu ci amoon ñaari xaaj lañ koy xaaj maanaam lim ci théorisé mooy lim bind ak lim ci pratiqué mooy lim jëf lim jëf te booy xool lim ci yaxal sax lim ci jëf moo ko gën a fes boo xoolee ci ay mbindam fu ne dafay fesal bokkoo gi mu bokkoo jullit ñëpp ba booy booy booy topp mbindam sax ñaan yi muy ñaan suñu borom yim ñaanal jullit ñëpp moo gën a bari fuuf lim ñaanal murid yi nga xam ne dañoo jébbalu ci moom fuuf moo gën a bari day fesalit ne jullit ñëpp ay mbokk la lañ jàppee almuminu almuminuuna ixwati wal muminaat lii axawaatun wa xayaati xasanaat ñi daal ñu góor ak jigéen ñi samay mbokk lañ ay mbokk laa lañ jàppee eh, waxit eh, ne yéen sama waa kër maa ngi leen di ni képp ku ngeen gis mu wax laa ilaha illallah na ngeen ko jàppee mbokk te bu leen ko noonu fala tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa allaahu képp ku ngeen gis muy dëggal na suñu borom kenn la moo mat a jaamu na ngeen xam ne kooku seen bokk la bu leen ko noonu mukk wax ci yu bëree bëree bëri yoo xam ne eh, kunu muhibbina al xuyali li jamia xalqi ila xalqi ilahina al muqaddimil muqaddimil badia mbooleem bindee fi suñu borom yëpp rek na ngeen leen yéene aw yiw na ngeen leen bëggal lu baax kon loolu di wane ne soññu na waa këram soññu na leen ñoom ñëpp ci ñu jàppee jullit ñëpp seen i mbokk danaa wax sax ne man ittaxasa inna wa innama fala yuadi muslima ne ñaari baata ngi ne ci alxuraan yoo xam ne ñaari aay ñaari waxin yoo xam ne bii inna la commencé bii innama ñaari ku leen jàpp doo noonoo kenn ne inna bi mooy inna seytaane la kom aduwwun suñ borom moo wax ci alxuraan ne yéen julli ñi na ngeen xam ne seytaane seenum noonu la nee na loolu leer na kon julli ñi xam nañ ne benn noonu la am suñu borom leeral na leen ko mooy seytaane beru na fële ne innamal mu'minuuna ixwa mooy julli ñi gëm yàlla ñëpp ay mbokk lañ ne kon mbokk it suñ borom leeral na ko mooy mooy mooy jullit ñëpp ñu gëm yàlla ñëpp ne jàpp ñaari aay yooyu nag doo noonoo kenn ndax suñu borom wax na la ne benn noonu nga am mooy kon loolu la la jàngal waa këram ci bennoo ci euh, yéene julli ñëpp li ñu leen yéene moom nag mu ñëw euh, jël ñëpp mu bokkoo leen booy xool xam nga ci biir lislaam am na ñeenti kër ñeenti école yu mag ci wàllu ci wàllu delluwaay ngirum imam malik mooy li ñuy wax ngir yi ngir yi ci gën a siiw ngirum imam malik imam shafii imam xanafi ak imam xanbal yi imam ahmad ibnu xanbal ñeenti ngir yooyu mooy gën a fes bi bi tànnoon ci bu leer mooy ngirum imam malik moo gën a tasaaroo suñ fii wax waa këram lu leer ne leen euh, aleykum bil malikiya fa innaha mutaharatun munawara maa ngi leen di digal na ngeen jàpp ci ngirum imam malik ndax ngir la moo xam ne set na leer na kon na boobu noonu waaye teewut li muy tànn boobu dafa reconnaître ne yeneen yëpp dañoo baax euh, aimmati fil fiqhi malikul ali wa shafii wal xanafi wal xanbali ne ñoom ñeent ñëpp jàppee na ne leen ay imam te xam na ne mu ngi saxal ne liñ nekk lépp lu wér la kon loolu mooy wane ne mboolem jullit ñëpp day rafet njortu ci ne ñoom ñëpp liñ nekk lu wér la donte bokk ngiruñ jàll loolu bind na ngi ci kon ci jullit bi nga xam ne Sëñ Tuubaa mooy sëriñam wala bëgg na roy waay mu xam ne mu bokkul ngir it war naa rafet ci njort ci moom ndax ñëpp ci lu lañ ne buñ ñëwee ci tarixa yi lu mel noonu la ci gisin woowu la ci amoon maanaam wane ne tarixa yëpp yi ci wér ku ci nekk te jàpp ci charte yàlla borom tarixe bu wax faaw ma ngi la jëmee ca aljana insha allahu taala maanaam ci texe la jëmee bi mu waxee loolu mu xool tarixe yi fi gënoon a siiw ci Sénégal mu tudd ci ñaar muy tarixal qadiriya bu Cheikh Abdul Xaadir Jilaani ak tarixa tijaani bu Cheikh Ahmad Tijaani radiyallahu anhuma wax ne wax ci Masaalikul Jinaan ne euh, fa kullu wirdin yuridu l-murida li xadratillahi walan yaxida sawaun intama ila al-Jilaani aw intama li Ahmad Tijaani aw li siwahuma min al aqtaabi is kulluhum qataan ala sawaabi ne kat bépp wird bu murit jàpp murit foofu noonu bu ko waxee mu ngi jublu rek ki soobu ci yoon yàlla jubluwu ci ñi yëblu ci moom rek murit bi soobu ci yoon yàlla ndax xam ngeen baatu murit loolu lay firi dëgg-dëgg bu dul ko xëccaatee ba waa Kër Sëñ Tuubaa leen di woo ay kon saxal na it ci ne tarixa yëpp ñi fi nekk ñi ngi ci lu wér ñi ngi ci lu baax ñi ngi ci loo xam ne lu mat kon loolu yëpp ay mbir la yoo xam ne sëñ bi jëf na ko joxoñ na ko waa këram ci taxawaay ci waram loolu nag su ko xasee wax ci anam gi du ko wax ba noppi di am yeneen taxawaay yu bokkut ak yu bokkut ak mu wax nii euh, moo tax boo delloo ci ci ay mbindam da ngay gis sax muy wax neen naan wasul xiyaara al ulama wal awliya waxdimuhumu lillaahi euh, waxdimuhumu euh, lillaahi jalla kulla xiin waaw wasul xiyaara al ulama wa saalihin waxdimuhumu lillaahi jalla kulla xiin na nga sax ci di di siyaare nit ñu baax ñi ak di leen liggéeyal kon soññ na ci ñu bàyyi xel nit ñu baax ñëpp wax leen ne leen ñaan fi ngeen ko fekk may naa leen ko loolu moo taxoon nag ba relation boobu la amoon na ñi fi jamono teel bu ñu xoolee fii tarixa xadiriya tarixa tijaniya soo xoolee tarixa tijaniya noonu la meloon ak ñoom yaa ngi gis Cheikh Omar Fouti radiyallahu anhu mi nga xam ne sax fekkante wuñ jamono ak seriñ bi fekkante wuñ jamono euh, maanaam fekkante nañ jamono waaye yàggut taal bi mu fi jóge xay na sëñ bi ci raw la ne waaye teewul sëñ bi dafa reconnaître mbirum Cheikh Omar di ko tagg ci ay mbindam gis nga ci ci aljawhar nafis fa kaana sha'nuhu ka xawli omara man bi tuqaa wal ilmi qad ta'azzara am na sax wax nañu ca demoon na Saalum ca sëñ Maxtaar Penda si mu abal ko téere primaax bi nga xam ne Cheikh Oumar moo ko bind bi mu ko jàngee ba noppi eh, sëñ bi bind ci aw bayit man sarrahu nay la na man sarrahu nay la asrarin isa nazara fala yufaariq koo xam ne daal bëgg na ay mbóot bëgg na njariñ bëgg naa xéewal ku bëgg loolu na taqoog téere Cheikh Oumar Foutiyou bi man sarrahu nay la asrarin isa nazara fala yufaariq limaaha cheikhina kon Cheikh Omar Fouti moom nekkoon Tijaan nekk kilifa liggéeyal dina lu bari ci fii ci Sénégal taxawaay boobu la ci Sëñ Tuubaa amoon ci moom ngir wane reconnaître reconnaissance bi nga xam ne am na ko ci moom. Euh, ku ma mel ne ku mel ne euh, alxaadima jaxate la nga xam ne moom sax sëñ bi jàng na ci moom maam jëriñu na ci moom ci xam-xam donte sëñ bi day wax ne xaad yi jànguma ci moom ab téere ñëwuma jox ko téere mu dima jàngal waaye dama daan bind ay bayit ay way di ko jox mu dima ko xoolal di ko jubanti ba ni mu demee nag ba ne ma léegi daal ni ma gisee say way gisatu mënatuma cee gisee njumte teel bind daal li ma jox may mokkal loolu lañ séq nga xaat yi mm, sëñ Moroon Salim yi waajur sëñ bi moom lay moom la xaw a maaseel moom la moom la nekk nekkaloon xaritam donte mujj na mook sëñ bi ñu ñu séq yu yu yu yu relation yu rafet rafet macha allah ndax moom mooy waajuru sëñ Bay Jaxate mii di taalib sëñ Tuubaa radiyallahu anhu euh, noonu lañ seqoon gis nga si ak euh, xoqal bu kaaw ma jaxate kala moo tax sëñ bind ko sëñ Basiir nee na bayru njëkk wi la bind yónnee sëñ boobu sëñ baa ngi Tuubaa ci atum 1311 yaakaar naa mooy boobu sëñ bi bëgg a dem ci géej gi rek mu yónnee ko baydu nee na mel ne sëñ bi loolu la doon xaar di di nattu sëñ bi yónnee ko bay baydu euh, xoqal bukaaw ala saadaati namwaati tabukil araadi alayhim ka samawaati sëñ bi nee na mu ñëw rek sëñ bi wéy wéy ci la taalif xasida gi def ci lu ëpp téeméeri bayit nee na wax nañ ko ne sax xaadi bi ko sëñ bi yónnee xasida gi jooy yu metti la ci boole ndax xol bu sedd ak rek mbir mi àgg na ko fu fu kawe kawe ndax xam ngeen sëñ bi tagg na ci yoon sansam tagg ci nit ñu baax ñi wax ci seen i jikko wax ci nit ñu man wax ci njëriñ ñi amal ci nga xam ne mooy mooy tax mooy taxu ñun ulaay banaan euh, loolu kon wane na bu baax relation bi nga xam ne xaadima ci xarikale bi nga xam ne du murit it relation boobu lañ amoon ñoom ñaar muy bu bu rafet ba mujj xam ngeen ba xaad yi sax amoon na ay liggéey yum soxla woon yoo xam sëñ bi yabaloon na ay murit dem liggéey lig ko ba mujj gi muy way mu leen di way mucc xasid ak murabboona maanaam watallaahi law anal murabbiya qaadahum li yanfuu anil ardi daa zalzalul arda maanaam murid yi ma gis naa li ma xam mooy seen sëriñ bii gëm nañ ko gëm goo xam ne bu leen waxoon ne leen nañ fi jëlee tubaab yi réew mi nar a yëngu rek waaye faaw moom li sëñ bëgg danañ ko def ngir wane rek boobu di leen tagg ak pëstéef bi ñu àndal euh, mujj gi tagg na sëñ xam nga tagg buy di rafet am na fu mu koy waxee sax euh, min nii li ahmada min nii li ahmada bamba taariki naasi gayral ilaahi fa am saa sayida naasi Euh, daan ne lii maa ngi ko yónnee Cheikh Ahmadou Bamba mi nga xam ne bàyyi nañ nit ñëpp jublu boromam ba mujj suñu borom jot ko yëkkati ko teg ci kaw nit ñëpp euh, wax nag ne làquwaay la wéeruwaay la euh, manjan malazan mafaran mawilan wazaran mawan lahum fi xululil buusi wal baasi ne nit ñi saa bu ñu am jàqee baa ñu tiit baa ñu am ay jafe-jafe sëñ Tuubaa delluwaay la ci ñoom kon relation bu rafet boobu moo amoon seen diggante ku mel ne Sidi Hadj Malick radiyallahu anhu moom it noonu lañ meloon sëñ Bachir sax wax na ci Minanul Baaxil Xadim ne ñoom ñaar euh, seen relation seen seenu diggante seen i seq rafetoon na lool fu ñu toll daan nañ bindante ku ci xewlewaan dara da nga bind yëgal ko wax ko sa morom euh, wax ko ca des nee na sëñ bi seeti woon na Seydi Hadji Malick ca njaar ne bi muy ñibbi Seydi Hadji Malick daa war gunge ko lu sore sore sori daan nañ yónnante ay addiye am nañ nee na kaamil bu El Hadji Malick yónnee woon sëñ Tuubaa radiyallaahu anhuma boole ci ñaari Euh, ne ko euh, euh, hadiyatun waaw hadiyatun mujibuha tilaabu mahabatin ya ayuha alxubaabu adaama rabbuna lana xablal wisaal wa kafana charra lazi ada wasal ne ko loolu kat addiye la xam ne maa la ko yónnee yow sama soppe bi li ma ci jublu rek mooy lu gën a rataxal suñu diggante man ak yow maa ngi ñaan suñ borom nag mu gën ñor sàmmal suñu diggante te mu sañu ci bépp yàqkat nee na sëñ bi ko ñaari bayit ne ko jazaakumu xayral jazal wahaabu wa fi safal widaadi tartaabu maa ngi lay maa ngi ñaan suñu borom mi mi mu fay la ngeen gi fay euh, suñu diggante bu ratax nag bu ci am mukk sikki sàkka ci ne faaw day wéy di rek dara du ko yàq euh, ne ko la fa kay falaawal mu safal mu jaabu imaamu naa wala xitala laa nahaabu ne ko noonu rek la demee ndax ñun yonent sallam mooy suñu kilifa ñun ñëpp kon seytaane ku taq ci moom euh, duñ ko ragal noonu lañ meloon kon donte am nañu mbokk biir waaye noonu la seen diggante rataxee woon loolu it bind ngi ci kon ne murit bi war naa xool bët bu mel noonu ci jullit bi nga xam ne bokkuñu tarixa ñoom ñaar ci ne yoon day mel ne wenn wenn yoon la woo xam ne ab autoroute à péage bu ñëpp jaar léegi nag mën nañoo bañ a bokk oto yuñ dugg waaye ñoo bokk destination bu ñu jëm te mooy bëgg-bëgg suñu borom bi rek euh, subhanahu wa taala kon euh, noonu la meloon na ñoom ku mel ne Cheikh Abdoulaye Niass ci Kaolack relation boobu lañ amoon euh, wax nañu sax moom suñ bi yónnee woon na ko téereb tafsirul jalalayn jox ko ko ba mu wax doomam Cheikh Mouhamadul Khalifa mu mu mu bind xasida tagg sëñ bi xam ngeen xasida gu gu gu gudd la gu neex ku yéeme goo xam ne euh, bind na ko yónnee ko sëñ bi cheikhun taqiyun euh, naqiyun alimun alamun euh, fama sanaa'i bi mutrihi wa am daaxi am na ca biir fu mu koy xabanaan ko huwal jalaalaani tafsirun li mansibikum misbaaxu subxin kada misbaaxu misbaaxu subxin ka daw i subxi lam maaxi déedéet déedéet huwal jalaalaani tafsiran li man sibikum misbaahu ilmin kaddaw is subhi lam maaxi tagg sëñ bi wax ko ne ko wax ko daraja ju màgg ji mu am xam-xam bi mbaax gi yiw yi xasida gu gudd a gudd la gu neex a neex nga xam ne da koo bind ci tur ci tur ci ci ndigalul waajuram di ci tagg sëñ bi kon euh, loolu ñooñu mën nañ leen a jël ab tënk bu gàtt <clears throat> ci relation bi amoon diggante sëñ bi ak ñi nga xam ne ñooy ay tijaan euh, ci biir réew mi Cheikh Ahmad Bamba di gànnaar la nekkoon bokk ci kilifa yi gën a mag ci tarixa bi ci jamono jooju diggante bi sëñ bi nekkee noonu lañ meloon ba moom sax àggoon na ci ne ci sëñ bi loolu mi ngi ciy roo ak ne ko na ko nuyul yonent bi sallallahu na ko nuyul si Ahmad Tidiane radiyallahu anhu te bu na ko na ko na ko jotali ñu tekki diir sëñ bi ne ko euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi koy fay Cheikh Ahmad Tidiane mi ngi koy fay doomam Cheikh Mouhamadou Lamine nee na Cheikh Ahmad bin Bedi ba nu mu fi jógee saabu xel mi demee ci loolu day fettas ngir yéemu ngir loolu moo ko sëñ bi wax ne ko yonent bi fay na la sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Ahmad am fay na la te xam ne loolu amul sikk te kooku wóolu sëñ ba ko wax du murit du taalibe sëñ bi ma ngi ci tarixa Tidiane yi waaye mbaax gi mu xool ci sëñ bi ba xam ne amul sikk ci ne mu ngi ci loolu moo tax mu rafet jot ci moom di ko loolu bind ngi ci ci ci ne mbaax fu ne lay ne mbaaxu suñu borom bi dafa yaatu yaatu koo xam ne kenn waru koo tëj rek ki benn roq ku ne rek mën ngaa jëriñ ci sa morom ci jullit ñi moo tax doon wax taalibe ne leen am amma ahzabul aqtaabi wala waatu saalihin fa azintu lakum bi isticmaalihi ne leen ñaan yi jóge ci nit ñu baax ñi fu ngeen ko fekk lu ngeen ci mën a jëfandikoo may naa leen ngeen jëfandikoo ko kon bis loolu bind lay ci relation bi waraam suñu diggante ñu nag ñi nga xam ne duñu ay duñu ay murit wala ci jullit ñëpp rek ak fépp fu mën a bokk rek gis ngeen sax Cheikh Ahmad Bamba moom bi mu fi jógee eh, nee nañ sëñ bi eh, Cheikh Mouhamadou Lamine nee na dafay jóge ci guddi gi ñu ne buñ xëyee yëgle ko bi ñu xëyee fajar lañ fekk sëñ bi yónnee ay ndaw moom Euh, ne nañ nañ ñëw fekk si denc bi neen dañoo xëy rek ndaw yi sëñ bi agsi te ñoom yëgalaguñ ko ko sëñ bi yónni leen jox leen ak xasida euh, laqad jaa ruuxul qudsi wa huwa mufarriju bi junil azimi xiina ahmadu yaxruju jeex di ci tàgg Cheikh Ahmad bin Badi ak di ci wax xewal yoo xam ne am na ko euh, ca boroomam subhanahu wa taala kon loolu ab ab jukki bu ndaw la ci relation bi nga xam ne doxoon na diggante sëriñ bi ak ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci tarixa tijaaniya te nga xam ne ay mbokki jullitam la ñoon ñi nekkoon tarixa xaajire noonu la meloon ak ñoom ku mel ne Cheikh Sidi Khouya Cheikh Mouhamadou Lamine noonu lañ meloon gis ngeen lettre yi si mbir bi moom sax la zel na mutahabbayni fi zaati fi zaati rabbil alamin yàlla buñ dañ ci di bëggante te yàlla rek tax man ak yow moom mooy mooy mbokkum soxna Mariama Kunta mi nga xam ne sax kenn ci njaboot sëñ bi moom lañ ko tuddee bokkoon ci tarixal xaadiriya euh, ku mel ne Cheikh Saadu Abihi moom it noonu la meloon nag sëñ bi nekk kilifa gu mag waaye amoon relation yi ak sëñ bi gis ngeen bi sëñ bi jógee keroog ci ci géej gi mm, bind na ak ak xasida am na fu muy waxee sax euh, banaan banaan euh, banaan hani an li zaddin al gharib allazi gada yatihu sururan minkum wa iftixaara ne ko kat ma si Ahmadou Bamba yow maa ngi ndokkeel lislaam gi nga xam ne tey bi nga ñibbisee dafa dafa mel ne dañ koo xojoon tey nag lislaam xoj boobu dañ na ba yëkkati na ay loxom di bàkku ngir ñibbisi gi nga ñibbisi ni mu nekkee ndam ci moom nga xam ne moom li muy nekk nekk xaadir relation bu baax boobu la ñu am bët boobu lay xool sëriñ bi eh, ba ne ko sax am na bayit wuñ doon wax bu yàgg tey ji yow yaa ko yeyoo mooy xalifa zamanu la yaati yenn bi mislihi xanisat yaminu ko yaa zamanu fa kafiri ne ko àdduna kat eh, giñoon na ne dina indi ku mel ne Cheikh Ahmadou Bamba yow àdduna nag maa ngi lay ñaan na nga tuub sa ngiñ maa ngi lay xamal ne na nga tuub sa ngiñ googu te xam ne ku mel ne Cheikh Ahmadou dootoo ko am dootoo ko indi ku eh, sëñ bi ay bayit sëñ bi tontu ko ay bayit yu bëree bëree bëri euh, loolu lépp di wane rek relation bi nga xam ne amoon na seen diggante ñoom ñaar euh, ba léegi ci tarixa xaadir yi xam nga Cheikh Sidiya Baba ma ca gànnaar relation yi mel noonu la amoon mook sëñ bi xaju fi moom li dox seen diggante moo leen sëñ bi daan defal ci ak mbaax ak yiw buñ ko doon lim xaju fi loolu lépp di wane ne rek relation yu am solo yi nga xam ne amoon na ko boo génnee gox bi it Cheikh si Yuusuf Nabahaani yi nekkoon ca noonu la sëñ bi meloon ak moom gis nga sax moom mujj na bind ak xasida yónnee ko sëñ bi ngeen addee yu ko bi yónnee di wax naan man faatahu ahmadul muxtaari man inam inam inam ra an faatahu faata nu mu koy waxee sax inam ra an faatahul muxtaar min mudari wa faata wa faatahu ahmad wa faatahu xaadimul muxtaari maxbuuna waaw képp koo xam ne yéen son sam rëccoon na la liggéeyam katam bii bu la rëccee yaa ko nax nga ko perte nga lu rëcc mag lu mag rëcc na la maanaam képp ku yéen son sam rëccoon daal boo jamono te si amal ba mën ngaa jëriñu bu baax ci moom te moom ma ngi ci lu ma ngi ci liban bay wax sax njaareem xéewal gi nga xam ne am na ngir dëkk gi fa sëñ Tuubaa dëkk te ma nga ca Lima mos a ñëw sa Sénégal kilifa gu mag a mag euh, gis nga waa Madinal Munawwara ñëwoon nañ fii ci sëñ bi biñ jaaxle di ko ñaanloo euh, mu jox leen ay ndimbal jox leen ay ñaan gis ba gis nga ci ñaareelu yoon bi sax ay yoon la ñaareelu yoon bi sax ci la leen di bindal xasida googu ahlal madinati minni sarmadan lakumu aska salaamin yutibul xalba wal jasada banaan leen fustum fustum bi kaw nim ne abdillahi jaarakumu wa kaw nikum xawlahu fal taxmalu samada na ngeen xam ci dëkk gi ngeen dëkk ak yonent bi sallallahu kon loolu na ngeen ci sant seen borom euh, ñaanal leen ñaanal dëkk ba diggante bu gàtt lañ ci rek lañ bëggoon ñu am ko ba ñëwaat ci moom di ko sant ne ko liñ bëggoon jot nañ ci muy jafe-jafe ya nga xam ne amoon na foofu kon lépp di wane ne sëñ bi euh, jàmm la seqoo nag mboolem ñim jamonoon teel ñi ne fii ci réew mi ak ñi fi nekkut gis ngeen sax am na kenn ci mbokki naa di ku koy way banaan euh, tasiru ilayhi naasu charxan wa maghriba fa min rakibin bahran wa min rakibin barra min achaami jaat hulu foodu wa makkatin wa min taybatin jaat wa min tunus al xadra wa min min achaami jaat rufuudu wa makkatin wa min taybatin jaat wa jaathu min misra ne kat sëñ bi nit ñi fu ne la ñuy jógee di ñëw ci moom ñee ngi jaar ci géej gi ñii ngi jaar ci jéeri ji ñii ngi jógee Màkka ñii ngi jóge ñii ngi jóge Madina Munawara ñii ngi jóge Misra ñii ngi jóge Cham ñii ngi jóge fu ne ne eh, di ñëw di ko siyaare si ngir baax gu mag ku réy gi nga xam ne moo nekkoon ci moom kon loolu ab tënk la rek ci ndax ñu may wax ne waxtu bi mi ngi sori loolu ab tënk relation bi amoon diggante sëriñ bi ak ñi nga xam ne ñoom la jamonoonteel muy relation boo xam ne daa dellu ci la ma njëkkoon a wax mooy innamal mu'minuuna ixwa mooy ñi gëm yàlla ay mbokk rek lañ ay mbokk nag buñ doonee ay mbokk rafetal kon dana ñëw dana ñëw wegante dina ñëw ku ne yéene sa morom li nga yéene sa bopp dina ñëw te gis ngeen sëñ bi bu ngeen delloo ci ay ñaanam jullit ñëpp la ñaanal ba ci tukkeem bii ñuy màggal bi mu nekkee ci géej gi la ñaanal suñu borom ijaan lu juwaayi ilaa xaw mi saadatana wala tak finaa yow ma jàmm xal xi nii raana sama tukki bi na nga def sama ñibbi gi muy suñu texe ñun ñëpp maa ngi maa ngi maa sama ñooñ euh, lii kon bi kon sarmadan wajaal ma siriesa jaw fal fara lil wara mislal ma xaari nii euh, sama tukki bi nanga ma defal ma jëlee ci xewal gu mel ne lem na tem-tem ba mel ne lem te naa ko bokk ak mbooleem bi def yëpp loolu nag moom la indi woon moo tax ba bi mu ñëwee Cheikh Saadu Abi xam ne loolu ñëpp ko bokk muy ndokkeel lislaam kon ne ko yow ndokkeel naa la yow lislaam ci ndam lii nga xam ne Cheikh Ahmad Bamba moo la ko jëfal kon daal ci gàttal loolu rek ab jukki la bu ndaw bu tuuti boo xam ne dañ ko doon indi ci relation bi sëriñ bi amoon ak digganteem ak euh, mbokki jullitam yi mu jamonoonteel ay bind ngi ci nag ci képp ku dib jullit ci relation bi war a dox sa diggante ak sa mbokkum jullit te morom li nga sa bopp mooy rek euh, xam li ñu fi indi te bañu fi mooy sàkku ngërëmul yàlla sàkku ngërëmul yàlla nag du ci julli dong lañ defee du ci woor dong lañ koy defee waaye doomu aadama ñaara ko seq jullit bi lu ñuy wax ay ibaadaat mooy li dox digganteem ak boromam ak lu dox ay lu ñuy wax ay muamalaat mooy lu dox digganteem ak mbooloo mi ak moroom mi mbindeefam ñaar yooyu nag nit ki daa war a nekk ci diggante bi lu ci nekk mu koy sóor te xam ne ñaar yëpp lañ koy xaar boo ëllëgee ñoo ngi sant bu baax tey jégalu euh, di ñaan suñu borom defal ñu xéwal ak tawféex te sotti jàmm ci réew mi euh, fa tabaarakallah ahsanul xaaliqiin wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. bismillahi rahmaani rahiim. فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم